إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين bokk jullit yi gannaaw ba ñu sante sunu boroom jalla wa ala seede na moom dong moo yeeyoo ñu koy jaamu ñu ngi koy ñaan mu sax di julli ca suñu yonente ba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom mi nga xam ne moom la yónni woon ngir mu jàngal ñu naka la ñuy jaamoo suñu boroom mbokk suñu boroom boobi ca jaamu gañ koy jaamu bokk na ca loo xam ne jullit yépp dañ koo war a xam kenn waru koo réere mooy lislaam bii day yàlla samp na ko ci juróomi ponk ponk yooyu ba ca jiitu mooy seede ga ngay seede ne yàlla kenn la muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonentam la ñaareel ba mooy taxawal julli ñetteel ba mooy joxe azaka ñeenteel ba mooy woor weeru koor juróomeel ba mooy aj màkka ñeel ku ko man mbokk benn ci ponk yooyu nag mi ngi nii tiim ñu muy li nga xam ne mooy weeru koor suñu borom yàlla mu ne ay yéen ñi gëm faratal naa ci yéen ngeen woor comme ni ma ko farataale woon ci ñi leen jiitu ngiree ngeen am ak ragal yàlla ay bis yu néew la na am fukki weer ak benn yoo xam ne nii suñu boroom may nañu ko kum soob wooral kum soobul bu la bu la neexee añ mi di benn weer dong la ca yàlla jël kon muy bis yu néew suñu boroom yàlla nag ni koo xam ne fekkee na ko day na ko woor am maa ki feebar wala mu nekk ci tukki ku mel noonu na jël yeneen bis mu fay ko ca ña nga xam ne mënuñu ko it nañu lele lele goo xam ne nii daan ci dellu si incha allah mbokk wéeru koor ngi nii tiim ñu ñu koy séentu altine bii di ñëw loolu moo tax suñu xutba tey mi ngi jëm ci fàttali naka la ñuy war a teeroo wéeru koor ngalla way mbokk julit xamal ni la jiitu mooy ñaanal yàlla boole la ci ñi fekke weeru koor yal na yàlla subhanahu wa taala boole ñu ca bokk na ci loo xam ne dañ koy nettali ca boroom xam-xamu salafu saalix ñu ne ñoom day bu ñu masaan génn ramadaan juróom benn weer ya ca topp yépp dañuy ñaan yàlla nangul leen ramadaan bi ñu paase waaye juróom benn weer ji des ci at bi yépp ñi ngi ñaan yàlla fekk waat lan la yàlla wërsëgaleen ñu fekk waat ramadaan loolu mbokk mi ngi noonu am na benn sunna bu yonent bi alayhi salaam jàngale loole mooy bu la yàlla wërsëgalee nga séentu weer bi ba gis ko te it ñoo xam ne séentu weer ci sunna la bokk ngalla waay yéen ndaw ñi bàyyi leen ci xel toog di déglu ay commission baax na waaye ñay dem ca commission bay joxe xabaar ay bët rek la ñu yor comme seeni bët ca mbokk weeru koor yàlla koy wan ku ko neex looloo tax ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ànd naa ki sahabaam ñu séentu ko gisuñu ko benn sàmm jóge ca àll ba ñëw na ko ah yow mi yàlla yónni fi ma doon sàmme day gis naa fa weer ba mu ne ko yow gëm nga yàlla mu ne ko seedanaa laa ilaha illallah seedanaa yow yaa yonent yàlla mu ne bilaal waxal nit ñi ne weer yi feññ nañu woor kon kenn wuru caa xeeb sa bopp góor ak jigéen boo ko gisee nga ñaan yàlla ay yàlla weer wii de yàlla nañ ko teral ci ñun ci ngëm gu ànd ak jàmm yàlla nañ ko teral ci ñun ci mucc gu ànd ak jébbalul la gannaaw ba nga ne yow weer wi kat suñu boroom ak sa boroom mooy yàlla ndax weer wi mi ngi sax di jaamu yàlla di sabbal yàlla yow it nga xam ne jaamu woo ko comme lenn ci ñi nga xam ne doomu aadama yi dañ koy jaamu ñaareel bi mbokk julit mooy nga góorgóorlu boo fekkee weeru koor santal yàlla ana ñaata nga doon àndal ca waxtu wi daaw tey jii ñoom jiitu nañ la ci biir suuf wallahi bu doon yàlla joxoon mébét na leen lu ngeen bëgg la ñuy gën a bëgg mooy dundaat ba def ak jaamu yàlla ca jaamu yàlla googu duñ ko mébét lu dul ci weeru koor ndax la nga xam ne mooy la gën ci weer yi kon boo ko yeggee nga sant sa borom jalla waala waaye bokk na ci it mbokk nga bég ca kontaan ca doomu aadama day bëgg jaamu yàlla bu ko def rek wóorug ñàkk a ñàkk a pexe ñàkk a mun ma ko bañ a def déedéet xamal ne suñu borom da koo indi ngir yërëm la xamal ne suñu borom da koo indi ngir defar la adduna ak allaxira looloo tax yonent bi alei salaam da ci daan bégal sahaaba yi naan leen ah weeru koor da yegg si na weeru yàlla barkeel bëccëg yi day la yàlla wax ni ngeen koy woor mi ngi noonu guddi ya ngeen taxaw ci di ca naafila yàlla dina ci ubbi bunti aljanna yi lu lay yóbbu àjjana yomb lool yàlla tëj ca buntu sawar yi lu lay jegeel sawara jafe lool mbokk looli gannaaw bu la fa yàlla yóbboo nag nga dogu ci ne lépp loo xamee ni ni lu baax lu ma man dey dinaa ko def ci biir koor gi te loolu nga la way xamal ni jullit yépp la war ñi mën a woor ak ñi munta woor weeru koor ñëwul ngir nekk weeru kooru kese weeru koor mooy weeru zikr mooy weeru ñaan mooy weeru sarxe mooy weeru dox mbokk mooy weeru def lu baax kon nga dogg ci ni weer wii di ñëw day danaa ko jéem a dund dund goo xam ne yàlla dana ko gërëm ci man doonte ne waroon na ma ci at bi yépp waaye quand même weer wii moom danaa fexe ba dogg ci fépp foo xam ne fu baaxul la dama fa dem bépp wax ju bon danaa ko moytu lu ma man ci lu baax danaa ko def te it noonu la yonent ba sallallahu alayhi wa sallam meloon dafa daan ràññee weeru koor ak beneen weer ci léppam mi ngi noonee sarxeem ya julleem ya léppam jalla sallallahu alayhi wa sallam ba sax mu daan beru doomu aadama yi fin weeru koor féetewu ca jàkka ja sallallahu alayhi wa sallam suñu borom nee na ku dëggu ñeel ma ma dëggu ñeel ko ku dëggu ñeel ma ma dëggu ñeel ko heure boo dogoo ci loolu même bu dee fekk wa weeru koor tuyaaba ja da nga ko am te it heure boo dogoo ci loolu fokk yàlla jàppale la ay yow mbokk jullit xamal ni bokk na la gën a rëy la ñuy teere weeru koor mooy nga xam yan atte la ci yàlla subhanahu wa taala atte mbokk weeru koor googee borom bi da koo farataal ci jullit ñi koo xam ne majeur nga koo xam ne ànd nga ak sam xel koo xam ne tukki woo feebaroo wareef la nga war weeru koor bis boo ca dog xamal ne moo gën a garaaw nan sàngar ak njaawloog loo mën a xalaat amma suñu boroom yombal na ko ci ni ki nga xam ne daa feebar ca bu wooree woor googee mën na koo lor borom bi ne yow moom bàyyil ba koor gi paase nga bàyyi ba wér doog a woor bu dee koo xam ne feebar ba da koo condamné moom kat feebar bi yaakaarul génn ca su ko defee borom bi ne ko yow moom bis ba waroon a woor génnil culub ceeb nga sarxe ko loolu la ñuy wax ka mage ci ay at ba koor ga di ko sonal loolee mbokk mooy la ñuy tudde ak jotu amma bokk na ca ñooñi soxna yi nga xam ne dañuy nampal ca amuñu leneen lu ñu mën a def seen doom lu dul nampal leen ca loolee day ànd di leen lor ku mel noonu bàyyil ba yeneen bis ki ëmboon moo koy sonal bàyyil ba yeneen bis loolee mbokk mooy la ñuy wax ca la aju ca wàllu googee lu mel noonu it la ñuy wax ci aju tukki ji suñu borom subhanahu wa taala may na la nga dog sa koor doonte ne nii bu doonte ne koor gi du la lor day koor moo gën am maa nag bu dee koor gi dalay lor dog koor gi moo gën loolee mbokk nañuy bàyyi xel ci loolu suñu borom yàlla subhanahu wa taala ki majéragul koor waru ko waaye nga la waay taxaw leen ci seen doom yi sant leen leen ñuy woor ngiree ñu tàmm koor loolee day tax ba fii ak ñi ngi woor bi ila yumi diin bis bu ñu woor yàlla dala koy bindal ndax yow yaa leen ca tàggatoon loolee nañ ci bàyyi xel comme na ko yonent bi alayhi salaam doon waxee seen doom yi bu ñu amee juróom-ñaari at naxtaan leen ñuy nekk di julli koor gi it ki dem ba ràññee nañu naxtaan ak moom muy woor loole ñu bàyyi ci xel mbokk bu la yàlla boole ci ñuy woor xamal ne woor ponk ba nga xam ne moom la am mooy la ca jiitu mooy nga yéene ne damay woor amul benn jaamu yàlla bu yàlla di nangu lu dul jaamu ga dafa ànd ak yéene su ko defee yéene googee dafa war a nekk avant fajar avant fajar loolee tey altine la ñuy séntu weer wi mën nañoo koo séntu ci guddi gi amoo ci xabaar bi nga yeewoo fajar cinq minutes avant nga dégg ñu ne weer yi feeñ na yéeneel koor gi baax na amma bu dee fajar jot na nga doog a jot xabaar bi dañ naan la wooral waaye bis boobu da nga koy fay te it loolu mbokk mooy la gën a wér ci ñuy wax ne même bu doon yëgoo xabaar bi ci lekkoo man ngaa woor loolu ci naafila la waaye yonent bi alei salaam da caa génne kooru farata nee na ki fanaanoowul yéene kookee amul bisu koor donte ne da nga koy woor nag koor googe mi ngi commencé ni ko yàlla waxe kulu washrabu hatta yatabayyana lakum xaytul abyadu min al xaytil aswad min al fajr suma atimu siyaama ila leyl mi ngi commencé fi fajar jote fi julli fajar dagane fa la koor commencé fi julli timis dagane fa la koor jeexe loole mooy temps boobu boo wóoroon 19 heures de temps ca duggul ci ne avant fajar la ak après bi jant bi sowee mbokk xamal ne koor googu suñu borom yàlla bëgg ko loolu kon mooy yéene bi mooy la nga xamee ne la ca des mooy temps bi am maa nag la ca des it jullit war koo xam mooy koor googee lan moo koy yàq bokk na la koy yàq la ca gën a grave mooy doomu aadama bi góor ak jigéen daal di ànd ci ab sëy loolu moom moo ci gën a grave mboole mi borom xam-xam dëppoo nañu ne weeru koor ay jullit dugg ca ci sëy te bokkuñu ñu yàlla teggil koor googee bis boobee pour ñu far ko daañu woor ñaari weer yu tegaloo bu koor gi passé bu ñu wooroon cinquante six jours wala sept jours sax dog ko dañuy recommencer à zéro loolu kon di bàkkaar bu grave bu jullit bu nekk war a moytu waaye gannaaw loolu mbokk jullit bokk na ca nga fexe ba génne sa mëni yu loolee ci say pexe loolee na doon la nga doon toog di ko seetaan di ci doon jonjoo loolee da yàq sa koor amma bu doon da ngaa tudd gudd yi wala da ngaa tudd bëccëg bi nga gént mani wi génn ci yow loolu yàqul la nga xam ne mooy sa koor mu bokk ci la nga xam ne mooy lekk la gooy lekk na doon loolee ay comprimé la na doon loolee ay sirop la lépp loo xam ne jaarale nga ko si gémmiñ mu dem sa biir loolu da yàqu koor amma la nga xam ne ay tuufaay laag la nga xam ne mooy li ñu dugal ci nopp ak lépp loo yëgul mu ñëw sa put nga wan ko loolu yàqul sa koor bu dee ne daa yem rek ci ay tuufaay ak la ñuy dugal ci ay nopp mboolem pikiir yi du yàqu koor amma bu dee ay perfusion yoo xam ne day taxaw place lekk loolu dafay doon loo xam ne day yàqu koor borom xam-xam yu bëri it boole nañ ca wàccu fekk yaa ko tey bu dee teyoo ko loolu yàqul sa koor mais bu dee yaa ko tey loolu moom dafay doon lu yàq sa koor am nañu ca boole li ñuy tuddee alxijaama mooy gàjju deret génn ci yow loolu it moo tax ba mbokk julit lii di maye deret ngalla waaye moytu ko fekk di ko def fekk da ngaa woor même bu dee médecin bi nee na mën nga ko def waaye ndax ixtilaaf ba am te la nga xam ne mooy gàjju deret di génn ci loolu day yàqu koor lii mbokk dañuy gis ne mooy la nga gën a la gën a am solo loo xam ne jullit war na koo xam amma yéene bi dafa war a ànd ak yow ba jant bi soo heure boo ko teggee koor googee yàqu na comme ni nga ni ngeen ko xamee mu bokkit loo xam ne sunu mbokk jigéen ñi war nañ koo xam képp ko yàlla nattoo nga ànd ak baax nga la waay bul woor koor googee daa xaram ci yow képp koo xam ne wóoroon nga tey ba cinq minutes moo tee ñu dog nga yëg sa baax génn na xamal ne tuyaabay koor gi am nga ko waaye bis boobee da nga ko war a fay loolu la ñuy wax ci ki wasinoon te dereti wasinam jeexagul suñu borom yàlla may nañu képp koo xam ne danga woor nga fàtte daa di lekk wala nga daa di naan dangay gis ne tegtal yi gën a dëgër mooy koor googee baax na jarul nga koy fay soo demoon nag ci lenn lu mel ne mazhab Malik ñoom dañ naan amoo benn bàkkaar waaye nag fayal ala kulli xaal boo koy fay da nga koy fay ci peeg waaye tegtal yi gën a dëgër mooy maadaama dangaa fàtte ne dangaa wóor boo añoon ba suur naan sa kaasub attaaya it loolu yàqul la nga xam ne mooy sa koor kon mbokk weeru koor mi ngi nii la gën a màgg mooy nañu dogu dogu ci jëm ci suñu boroom def ko weerug dellu ci yàlla jalla wa ala weerug sakku la nga xam ne nii moom mooy ay tuyaaba ca xam ne lii di société yi ubbi ci wàllu télécommunication jàngal nañu lu ñuy tudde bonus moo di ne ne da nga daan chargé nangam am ca 1000 francs ñu xëy xëy tey ne la yaa 600 pour cent moo ko xamal ni ñi ngi jëm wéeru bonus looloo tax ku ne ci ñun ne góorgóorlu mu bokk ca la gën a màgg lañ cay fàggu la yonent bi alayhi salaam bégali yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ki nga xam ne daa woor ba ngoon nga may ko lu mu doge yowmal qiyaama bu ko yàlla yi fay ca koor googu yonent bi alayhi salaam nee na mboole mi jëf yàlla day délégué malaaka yi ñu fay ko amma koor moom suñu borom danaan jaami kay leen maa moom man maay fayal sam bopp ka nga xam ne daa wóoroon nga jox ko lu mu doge mboolem lu ko yàlla fay fay la lu tol noonu mbokk tuyaaba joojee góor ak jigéen kenn wurul fexe mu raw la ngalawaay loo man ci jël sa alal joxe ko ngiree ay julit doge ca ngalawaay defal loolu loolee ñu bàyyi ko xel xam nga leen directement joxal leen ko sa bopp fa lillahi alhamd xam nga ay nit ñoo xam ne am nga ci ñoom yaakaar ne soo leen ko joxe ñu jottali ko jox leen ko ñoom ñu jottali ko même buñ ko jottali wulit yow sa sa sa jaan moom wàcc na sa pay tabbi na ca yàlla jalla wa ala loolee kon di mbir moo xam ne nii ñi ngi ciy bàyyiloo xel bu baax comme na ngeen xamee ne it jàkka ji bokk na ci ay jullit yu bari yoo xam ne ñi ngi nekk ci gox yi safaanoo ci Sénégal bu koor jotee seen yaakaar ñi ngi ko jëmele fii ngir ñi fi nekk di def lu baax di génne seen alal di ko joxe loole it képp koo xam ne nii indi na ko fi insha allah dana yegg ci ñoo xamee ne nii dañ ko yeyoo lii mbokk mooy ab tënk boo xam ne tënkal nañ leen ko ci gan gi ñu yaakaar teeru ko ñu war koo fonk fonkinu kay gën a nekk suñu soppe amal ñu njëriñ ci àdduna dañuy dikkal benn yoon par at mbokk kooku bu ñëwee fokk nga fonk ko loolu nañ fonk weeru koor dogu ñaan yàlla lii day mbokk buñ ko defee suñu borom yàlla mi nga xamee ne nii mooy dëppale ku ko neex ci ak la ko neex incha allah danañu wër sëgal ba lépp loo xam ne nii yaakaar nañ ko ci moom mu bañ a tas suñu yaakaar loolu moo tax ba mbokk julit ñu ngi ñaan suñu borom yàlla ci mbaaxam ak yërmandeem yàlla nañu yàlla boole dugal ci weeru koor yàlla boole ñu dugal ca la nga xam ne mooy suñu xol yépp ànd ca yàlla nañu yàlla subhanahu wa taala dëpp léegi lépp lu ñu cay jëriñ adduna ak alaxira yàlla na doon weer wuy tekki suñuy tiis yàlla na doon weer buy dàq suñuy njàqare yàlla na doon weer buy faj suñuy jàngoro yàlla na doon weer boo xam ne nii suñu borom dana ñu ca jegeel tëjal ñu ca la nga xam ne mooy bunti safaraam ubbil ñu ca la nga xam ne mooy bunti aljannaam allahuma rabbana atina fi dunya xasana wa fi alaxirati xasana wa qina azab annar rabbana zalamna anfusana wa in lam taxfir lana wa tarhamna lanakunanna min alxaasirin اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا برحمتك من الراشدين سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين